mbokk yi ñu ngi leen ni nuyu bu baax di leen siyaare di leen ndokkeel ci weeru tedd bii ñuy jeexal ak bis bu tedd bi ñu jublu si ak jotaay bu tedd bii ñu nekk di jotaayu xam-xam di jotaayu diine di ñaanal suñu kilifa gi yàlla dëgëral ko kàttanal ko yokk aw fanam ba naar yim sumb mu yeggale ko te naal yeneen te ànd ko ak moom comme ni ko baaxoo amee ci jotaay yi nga xam ne daayira muqaddamatul xidma biñ dénk jumaa ji ak li ko wër mi koy saytu boobu ba léegi bi weer yu commencé ba léegi mu nekk ay jotaay yu xam-xam yu ñuy ànd ay boroom xam-xam di ci jàngat ay tomb yu am solo di ñu teel ci suñu diine ak suñu dund yëpp noonu lañ koy defee waat mit tey incha allah tey jii di bis bi mujj ci weeru koor wi incha allah di 29 ramadan 1444 tolloog 21 avril 2023 ñu ngi ciy ànd suñu mbokk suñu ustaaz suñu xarit al ustaaz Assane Diouf di jàngalekat ci daara ju mag jooju di Al Azhar di nekk daara alimil xabir nekk it ab gëstukat boo xamante ni day gëstu di yëngatu ci xam-xam kon waar wi ñu ko woo aw waaram la ñu jox ko yit tom boo xamante ni tomb bu yitteel la tom bu am solo la te du leen di ko doon muy ay bind wala ay masala ay mbir yu ñu jukki ci albaabu thani ci téereb sëriñ boobu tudd aljawharu nafis ñu tënkee thème bi masailun fi masailun min al baabi athani fi jawhari nafis tomb yu tomb yooyu ci la fas yéene ñëw ak ñun leeral ñu ko ndax bu ngeen xoolee julli dafa bari yu ci mën a gaar yu ci mën a gaar léeg-léeg mu doon yu ko yàq léeg-léeg mu doon yoo xamante ni joyanti ko dana mën a nekk léeg-léeg mu doon yoo xamante ni dañ koy sib wala mu doon lu ñuy lu ñuy sopp yooyu yëpp bunt bi da koy da koy jàngat téere boobu nag di jawharu nafis seen bi ni mu ko waxee mi ngi ko jëlee ci laxdar yi wala mi ngi leeral téere boobu doon alaxdar yi hada wa inna ni qad saraftu hammi li xaqli nasri axdar yi alxarmi li tax mu mu jël ko nag woyaat ko leeral ko ngir bëgg rek mu yomba mokkal di li kay yakunu toxfatan li kulli man araada hifzahu min abnaai zaman bi mu ko jëlee nag kenn ku ne xam na ne da koo jël leeral ko waaye yokku ci sax yoo xamante ni rotut ci téere cosaan boobu di alaxdar yi am ci beneen bunt nag benn bunt buntu bu mujj bi nekk buntu bu am solo albaabu thaani nekk bunt bu fees dell ak i masala ak i mbir yoo xamante ni day yit day yitteel jullit bi mu nekk yu lëkkaloo ak julli yoo xamante ni da cay gaar wala mu cay xew bu siñ bi jëlee kàddu gi si naasan dangeen xam ne tomb bu bu am solo la bu jara bàyyi xel la bu jare it ñëpp xam ko la ndax loolu chaque jour dañuy dañuy jànkonte ak ak moom kon dañuy daaneel foofu suñu wàcc foofu suñu kàddu jox si naasan kàddu gi ñaanal ñaan ko ñaanal yàlla ñaanal ko yàlla mu defal ko tawfeex ba ni mu ko bëgg a jotalee mu jotalee ko noonu ñu tamit yàlla defal ñu tawfeex may ñu nopp yu mën a taataan daal ñuy daal ñuy def ñu jariñu ci jëfe ko bismillah أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن المكين wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ci mbokki yi ñu bu baax ci barab bu tedd bi barab bu barkeel bi boole ay barke yu bare bare waaye jamono bu tedd ji nga xam ne mooy tàkkusaani ajjuma du tàkkusaani uh, bi mujj ci weeru koor di ñaan yàlla rek jéggal lu mbooleem bàkkaar yi te nangul lu mbooleem jaamu yàlla yi ci def ci barkeb sëriñ bi nuyu baax sëñ Abdul Xaadir ba fay bu nuyoo di ko sof ci nuyoo di ñaanal yàlla suñu kilifa sëriñ Muntaxa nu ko yàlla yàggal te wéral ko te àggale ay ñëbétal daaira muqaddamatul xidma itam ñu leen ñu baax di leen siyaare di ko teg ci loxol suñu kilifa suñu afiya bu buñ ko nuyoo rek nuyu nañu mboolem ku bokk ci muqaddamatul xidma waaye nuyu nañu mboolem ku dëkk ci di kilifa ak doon di nuyu mboolem ku ku jàkkaarloo ñu ak ñuy dégg ñu ñu baax di la di sëñ Abdou Xaadir mu ko waxee rek euh, tomb bi nga xam ne sàkkoon nañ ci ñu waxtaane ko mooy ay masala ci bunt bu am solo boobu yi ci téereb jawharu nafis bu sëriñ bi dañu bëggoon a jëkk def rek mooy waxtaane tuuti rek ci téere boobu yi ñu benn tomb bi nga xam ne des na ci waxtaan ci ab tënk buñ ci waxtaanee itam des na ñëw balaa ñoo ñëw ci tomb bi dëgg-dëgg des na waxtaanee euh, solos julli ndax li ñuy waxtaanee dafa aju ci julli moo tax kenn mën ta waxtaanee tomb bii te waxtaanu julli bu ñu waxtaanee julli nag ba noppi nag soog a ñëw nag ci tomb boobu nga xam ne am nañu koy tudde baabu sax bi wala salaat yi wala boog lu aju ci loolu kon euh, bu ñuy waxtaanee tomb bu mel yi faaw ñu waxtaane téere bi nga xam ne ci la ko sëriñ bi indi al aljawharu nafis fi aqdi nasri al akhdari rais jawharu nafis di to euh, tur rek ku ko dégg xam ne wurus bu sell ci fas weseru laxdari laxdari nag ñi daan jàng fiq xam nañ ko ndax mën nañoo wax ne masail yi ëpp ci wàllu julli wàcc na ci nga xam ne ku ko jàng bari nañ loo xam ne da nga ko xam ci wàllu julli la ci aju ci ay laabar ak yu mel noonu laxdar itam ñu wax ne ci mazhab imam malik radiallahu taala anhu la ko sëriñ bi la ko laxdar yi defoon sëriñ bi da way ko li muy wax nag majaal bi muy wax mooy li mu njëkke rek mooy wartee fu jullit daanaka nañ ko tudde noonu da ci sëñ ba wax muy muqaddimaam boobu euh, daanaka doy na téere ndax sëñ bi leeral na ci ab jullit dëgg-dëgg ginnaaw bu gëmee yàlla yan jikko moo war ci ak yan jikko moo araam ci moom xam ne loolu la jiit jiital ci téere bi Euh, lam ca waxtaane waat mooy laab nga xam ne mooy waajal julli ak masaay ya ca aju ci moom ak julli moom yi ci boppam sëñ bi itam wax ne sababu li tax mu wayaat ko sëñ Abdul Xaadir wax ko léegi li koy yakuna tuxfatan li kulli man araada xifdahu min abnaai zaman kon wax na xarat bi tax mu way ko kon fekk ab téere boo xam ne dañ ko taalif ba noppi soo koy jëlaat day mel ni leeral xarat bi li tax nga woy ko day mel leer sëñ bi leeral na ko dama bëgg mu jàppandal ci képp koo xam ne bu ko bëgg a mokkal ndax xam nañ ne way moo gën a neex a mokkal euh, mokkal la euh, jawharul nafis moo gën a yomb ndax way dafa neex wa an yakuna raaxata sigaari wa ma an laxtaaja min nee itam li tax mu way ko dafa bëgg mu da nooflaayu mag ñi kon ndaw ñi may na leen ci seen sens waaye mag ñi itam may na leen seen sens ku ko aajowoo ci mag ñi rek mu doon sa nooflaay ndax andi na ciy masaayil yoo xam ne ku ko bëggoon a jàng da nga ubbi téere yu bare bare bare du wër a wër a wër yu bare bare mu indi ko talxiis ko gàttal ko euh, indi ko andi mu yéeme yéeme yéeme euh, lim ci way nag mooy lim ko waxee léegi julli nga xam ne julli téere bi itam lim làmboo ñetti xaaj ñu ko mënee xaaj mooy jikko mën nañ ko waxe noonu ak laab euh, xam waxtu wi jullee ak euh, nga xam ne téere bi bu ko doon waay ci ay bayit mat na 662 bayit kon daanaka bëriwul lool Euh, julli lépp nag daanaka bu def ko ci julli ginnaaw ginnaaw euh, ñaari baati seere yi li ci ëpp solo mooy julli des na ci ñëw euh, def ko ci julli ak booy waaj ngir julli ndax li ci jiituwaat ginnaaw jikko yi li ci des lépp daanaka waajtaay la waaj kaay la ngir julli masaayil yi nga xam ne jël na ko ci ci ahkaamu sax bi rek daanaka mat na téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci ay masaayil yoo xam ne buñ ko doon laaj tey laaj ak tontu lay doon xam ne buñ la laajee nangam lu ci topp nga tontu kon bi mel na ne jox na ko cër lool téere bi mu ko jëlee wax nañ ko léegi mooy la euh, lil allaama abdurahman al akhdari ci la ko euh, jëlee muy téere bu nit ñi jox ñett euh, gën a nit ñi yàgg bàyyi xel ci jàng bu jëkk daanaka bu ñu lay laaj ñëpp dañ naan ndax jàng al akhdari jàng ga risaala boo jàngee Laxdari rek seen xel dal ci sa sa julli ndax la ci nekk ci ay masaayil sëñ bi nag dëgg-dëgg moom la wayaat waaye lam te dolliwaat bari na lool ci loo xam nekkul woon sax ci asli bi ngir gën a yaatal njariñ bi comme ni mu ko baaxoo uh, defe ci kii yu bare bare bare ñu uh, ñu taalif na ci ku mel ni alaaji Omar Fuuti Taal taalif na ci tazkiratul mustarshidin wa falah taalibin ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam taalif nañ ci téere bi kon ñu baree bari boo demee ci kii bi da gis ne téere boobu ñu bari ñu ngi koy sharp di ko yaatal kon téere bu am solo la yàlla nañ ko yàlla fayal moom alaxdari euh, ku ku ku maanaam téere bu barkeel la téere bu barkeel la bu muxtasar la muxtasar mooy lu ndaw waaye làmboo njariñ lu bare bare bare bare waaye ku yàlla barkeelal Euh, bu dul woon dara rek loolu sëriñ bi jël ko taarifaat ko rek tuddaat ko kooku doy na sëkk barke ndax sëriñ bi la aju ci moom ñu ñëw nag ci euh, importance julli julli euh, ndax balaa ñu waxtaane defar julli defar julli ak lu ñu tuddee suduuru sax bi xaw ñu waxtaane ci li mu aju julli moomu dafa am solo lool ba ta bàyyi xel la néew na lool itam nga dem ci barab ñuy waxtaani julli néew na lool te lu mat di waxtaani mm-hmm. ndax moom lañ xam ci jaamu yàlla boo xam ne bi ko suñ borom subhanahu wa taala di jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoon ni wut jibril waaye da ko ko da ko yéege ba ca moom ku ne xam na al isra wal mi'raj demee sëriñ ba ko jox mu julli la julli bokk na ci mu ngi noonu julli itam mooy dee yaaleeg sa boroom dañoo wax ne ku bëgg sa boroom wax ak yow del jàng alquranul karim waaye ku bëgg nag di wax ak suñu boroom subhaanahu wa taala di dee moom del julli kon loolu day wane solo su julli bëgg a dee yaaleeg sa boroom nga xam ne bu ñu ne woon kilifa bu mag président wala sëñ bi ku bëgg a wax ak moom del def nangam loolu suñu borom nag subhanahu wa taala buñ la nee bu bëggee wax ak moom di deyaale moom demal julli ji loolu rëy rëy la ci luy wane rek solos julli moom itam mu bokk ci arkaanul islaam nga xam ne ginnaaw ñaari baati seere yi la ca sës rek mooy julli yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci lu bare bare bare sallallahu nee na ëllëg yowmal qiyaam moom la ñuy jëkk xool julli la ñuy jëkk xool su jubee lépp baax su su dëngee dara du baax sëriñ bu mag bi daana wax ne dee leen julli te di ko jubal kuy julli di ko jubal ëllëg loo dëngal julli mën na koo jubaaleen daane moytu leen di julli di ko di ko dëngal ndax kuy julli di ko dëngal loo jubal julli mën na koo dëngaaleel kon daanaka daa firiwaat daa firi xadis bi rek julli itam bokk na ci li ëpp liy tax mu am solo lool mooy mooy jaamu yàlla gi nga xam ne liñ koy baamu dafa bari lool boo seetloo euh, bis bu set juróomi yoon juróomi yoon waaw juróomi yoon par bis bu dee koor gis nañ ne benn yoon la ñëw par at te kum neex ah, ah, nu ku am ngant sax am na nu mu demee doo woor bu dee aj màkka benn yoon bu dee azaka soo ko manee mais julli moom bis bi rek juróomi yoon dana ñëw loolu tam day wax importance julli moom xam ci jaamu yàlla boo xam nit ki dañu ko sant muy julli ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te du matagut te du majeuragul bu am juróom-ñaari at rek war nañ koo digal mu julli nañ seetlu nag koo xam ne juróom-ñaari at la am ñu koy julliloo ba am fukki at ak juróom-ñett daanaka fukki at rek daanaka julli na ko euh, wala lu ko ëpp te waragu loolu dara la ñoo bëgg day daamu yàlla goo xam ne daa mënta ñàkk dañ bëgg mu euh, xolam nooy ci ay cëram nooy ci summa taliinu juruuduhum wa qulubuhum ila zikrillah ñoo bëgg julli jaamu yàlla bu mel noonu ñu teel koo tàmmal xale bi ndax bu ëllëgee mu mën koo tàmm ndax day julli day jaamu yàlla bu dooy waar boo xam ne euh, suñu borom subhanahu wa taala lu fonk la beneen la mooy jaamu yàlla boo xam ne liñ ci sàpp day bari la ca gën mooy di ko defee ci néegub yàlla ñaata jàkka lañ tabax ñaata jàkk lu tax lu tax ñu tabax ko ngir julli loolu tam day joxe importance julli euh, di ko defee ci mbooloo ak ci organisation boo xam ne bu ci nit ñi tënkuwoon rek daanaka lu bare bari mën naa defoon ay chart yu ay charte chart yu tax mu war la charte yu tax mu wér lépp day day dugg nga xam ne balaa ngaa julli rek dañ lay chartal ay mbir mënoon nañu rek mu neex jullil waaw charte yi bokk na ci rek jublu xibla mënoon julli mënoon naa demee noo xam ne dañ naan jublu leen ci jàkka ji mu neex waaye jullee waaye importance bu mu am moo tax daanaka dañuy jiital kenn am ku nekk ci ginnaaw lu mu def ñu def ko li ñuy def ñu koy defandoo jublu benn xibla ndax bu neexoon muy julli gis naa kii boo xam ne imaam ya xamul jublu imaam bi jublu kii jublu nii kii jublu nii xam nga loolu moom sore naa lool julli julli moom da ngay seet macha allah ci organisation boo xam ne ñëpp benn kii lañ lañuy jublu loolu lépp di wane solo su mu balaa ngaa julli li ñu lay sàttal rek li ñu lay sàttal rek dafa bari taxaaratul xadas xadas taxaaratul xabas taxaaratul xadas xamees na ko xëy na mooy boo waree julli nga julli boo waree déet boo waree jàpp nga jàpp boo waree sangu farata nga sangu farata soo amee ngant nga tiim nga xam ne duñ nangu mukk nga julli rek te laabu loolu solos julli la lay wane ndax bu sañoon rek dañ naan julli rek ndax heure bu la neex julli beneen ba itam di ko def ci ay waxtu inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta kon kenn sañut heure bu la neex julli kenn sañut julli timis heure bi kenn sañut ku jullit du baax te yenn saa yi sax day araam kon loolu lépp day wane solo euh, julli mu am ay farata am ay sunna dégg am ay ngëneel am yuko ko yàq nga ne boo ko li ci aju lépp boo ko li ci aju lépp dafa bari ci nga xam ne dañ ko tee li tax ñuy wax lii nag euh, bu ñu jëkkewut lii daanaka bu dee rek ñu jëkkewut maanaam faratay masal ñu ko jàng ku ko xamut doon sax day a jàng waaw si ndax ca euh, kanam tuuti dana leer euh, boo xam ne bu ñu ko dee kaani wala bu ñu ko dee waxtaani dañ naan jaamu yàlla boo xam ne day tàmbalee allahu akbar bu jeexee euh, asalaamaaleykum am ay ruqon ak sujud ak yu mel noonu bu defee foofu def si toog nag bari na tey jii ay déedéet yoo xam ne war fukki te mën a leeral parce que ay farata la ay farata la allahu akbar fi nu boo doon allahu azam baaxul allahu akbar rek boo doon yàlla màgg na ci wolof baaxul loolu mat naa bàyyi xel ndax farata la allahu akbar moom lañ ko doo ko yokk doo ko wàññi ak la ci aju yëpp moom loolu ci farata la boobu bari na ma tudd yenn farata yi nga xam ne gis naa nit ñaa koy sàggane rek lu mel ni dal dal loo def boo rukkooyee nga dal lu mu néew néew ñoo xam yenn saa yi seen rukkoo ak seen sujjóot dañuy ñëw rek dégg nga yonent bi alayhi doon jàngale li tax nag loolu am damaa gis ne julli gis fenn fu ñuy jàngale julli bari bariwul ñuy jàngalee julli kenn ku ne da ngay jekki-jekki di gis ñuy julli te kenn du la corriger raa nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit daraan julli bu jullee mu ne ko jullil julli woo julliwaatal julli woo muy julli mu koy na ko booy julli da nga naan def nii ngay def nii ngay def nii ngay def ba mu xam mu wax ne sallu kama raaytumuni usalli waaw kon kii jàngale julli moom daa war a mën a julli bu defee soog a eh, eh, jàngale julli ak yeneen kii yoo xam ne mi ngi ci biir te dañuy bañ a jël waxtu wi bu bari beneen ba mooy gis naa ne am na ñoo xam ne ci wàllum dal ak yamoo mooy boo rukkooyee ba siggi sa siggi walla nga sa cër yëpp yamaat te mu de delluwaat bari na ñoo xam dañ koy sàggane te farata la te farata mooy mooy loo xam ne mënta ñàkk boo ko defut moom daanaka euh, julli woo euh, jataay bi ñuy toog diggante ñaari sujoote boo sujootee euh, toog foofu farata la tam gis naa ne bari na ñoo xam ne buñ sujootee rek dañuy sujootaat te duñ toogaay te jataay boobu day farata joo kenn mënu ko mënta mënta ñàkk ak yeneen ak yeneen julli itam bokk na ci solo si solo si mooy mooy jaamu yàlla boo xam ne noo mën a mel ak foo mën a tool boo feebaroon ba nga xam ne euh, yaa ngi waaj a faatu waaye sa xel a ngi dox du la wàcc tudd na ko ci téere bi faaw da ngay julli ak boo demoon ba nga xam ne yaa ngi sa xel rek mu ngi dox loolu tam day war importance euh, xam nga ne nit ku feebar ba mënta taxaw ñu ne ko taxawal wéeru mën naa boo demee ba nga xam ne mënoo ko ñu ne toogal boo boo boo mënta toog nga xam ne ñu ne wéerul kon nga wéeru boo boo mënta toog ñu léegi tëdd waaw waaye du la wàcc la bàyyi xel kon ki nga xam ne dara jotu ko moom muy sànku julli kooku lu mat a bàyyi waat xel ndax kenn du la may benn fursa ngir nga bàyyi julli ak foo mën a toll boo feebar ba nga xam ne benn wet rek mën a nga mën a nga mën a jullee bu euh, tey dañ la naan euh, jullil jullil du la du la waaj beneen ba julli ba ci xare toolub xare toolub xare xam nga ne jullit doo euh, yéefar yi di xeex jullit ñi nga xam ne dañuy mën nañoo xeex léegi ñu rey ñu bari ci jullit ñi rey ñu bari ci yéefar yi ah ñu toll ci war a julli xam nga boobu waroon naa wàcc ndax jihaad la taxawal islaam la waaye du tey rek ñu ne julli leen ñuy tudd salaatul xawfi waaw julli goo xam ne euh, imaam bi day jiite ñenn ñi ñenn ñi taxaw di garde su jullee ñaar rakka daal di sëlmal daal di daal di astaxfirullah daal toog ñee ñëw mu àggale ak ñi ci des su noppee ñee di gardewaat bu noppee nag ah, waaye mën a jullee rek jublu xiblaat mën a jublu xiblaat nga xam ne foofu lañ may ñaare ku julli te doo la xibla nga xam ne xeex a tax ndax yenn saa yi mënoo di julli ab yéefar di ñëw moom moom da dóor ba noppi daal di rukuwaat foofu rek lañ ko maye daanaka nga xam ne loolu lu ñu ciy jànge mooy daal euh, julli moom ak foo mën a toll ak lu kaa bi critique critique du tee rek euh, ñu ne la nga nga julli loolu kon loolu wares na ci jànge lu bare bare bare bare muy euh, téere boo xam ne nag mooy ñu ñëw ci baabu baabu sax bi xëy na balaañ tey ñëw dañ jiital dara rek ay leeral yoo xam ne xëy na dana feeñ sax si biir sëñ bi ni mu taalife téere bi ni mu ko taalife dafa yomb lool macha allahu taala sëñ bi it ku am méthode la ci taalif nga xam ne moom daawut indi ci li muy taalif euh, du ci indi ay baati arab yu jafe daanaka ndax lim ci jublu la daa bëgg rek nit ñi xam seen diine xam seen diine beneen bi itam da koy gàttal da koy gàttal ba nga xam ne nit ki ndax bu tolloon bu tolloon nii euh, doon 400 euh, page masala ñu ne jawharu nafis 400 page la day mel ni bu boobaa euh, ñu bare bare bare ci jàngkat yi dañ ko daw lu bare ba waaye da koy def lu ndaw loo xam ne lépp dana ko def ci biir te yow li ngay jàng lu yomb lay doon nga nga jeexal ko mu jeex nga jeexal ko benn yoon ndax xam ngeen ne waxoon na ne euh, bi mu digalee na ñëpp jàngi jàng li nga xam ne mënta ñàkk ci seen wàllum pas-pas jàng li mënta ñàkk ci seen wàllum diine mel ni àtte blaab ak julli ak yu aju ci moom daa ne woon warnul naa leen ne dinaa leen taalifal ay téere yu aju ci yooyu Euh, sëñ bi nag kenn ku ne xam ne ne amul jot te it ñàkk ñàkk jot gi dafa jàpp ne responsabilité bi bi ci jiitu mooy mu taalifal moom responsable bi nga xam ne moom la yor ci ñi ko topp te mu waxoon waxam ju ju siiw jooju yi wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen bis bind naa bàyyi fi mooy mbind moomu lu am solo la ñu ëpp ci ñun nag bu ñuy waxtaanee mbind mi day jël benn côté rek benn côté waaye day mel ni côté côté euh, mbind yi day mel ni ñu bari ci ñun duñ ko bàyyi xel wala boog ñii jël bii bii côté ñii jël ñii jël yeneen beneen côté bi te sëriñ bi mbindam mi euh, li ma dégg sëñ Afi Ñang di ko wax ab système la mbindam mépp ab système la mooy tax boo ko jëlee lépp da nga jariñu ci ngay gën a jariñu bokk ci jël dara rek da nga jariñu waaye ku bëgg jariñu nag da ngay jël mbindam mépp hadayta bi aqdi wa tasawufi wa fiqi ayaali bi zikri maxsalaati wa bil madhi gindi nga sama njaboot bi aqdi mooy tawxid tawxid moo lay xamal suñ borom subhanahu wa taala ak lu aju ci imaan wa tasawufi wal fiqi tasawuf moo lay jàngal nooy sellale sa jaamu yàlla fiq moo lay jàngal nag naka ngay jaamu yàlla mooy ci bunt boobu lañ nekk beneen bi nag mooy xasaayid madx ya yeeg salaatu ala nabi bu mel noonu yooyu yëpp ci système bi la bokk nga xam ne ku bëgg a gindeeku dëgg dëgg ci gindeeku sëriñ bi faaw nga boole yooyu yëpp muy jàng la nga war a jàng ci taalifam yooyu yi ba xam suñu borom subhanahu wa taala xam li digle xam nañ lañ koy jaamoo bu defee nag di jàng xasaayid yi mu lay defar ak a yëkkati euh, bunt bi kon bunt bu am solo la am ñu koy tudde sax wi Euh, mu tàmbale rek sunnaal na ñaari sujjóot ci boo dollee walla nga wàññi ñaari sujjóot kon sunna moo ci cosaan sunna waaye dana àgg foo xam ne farata lay doon xëy na des na ci ñëw ndax soo ko bàyyee si julli day yàqu waaw day àgg foo xam ne farata doon wala sax dana àgg foo xam ne du doon sunna sax ndax boo ko bàyyi itam du du yàq sa julli mustahab rek lay doon waaye asl bi wala cosaan li mooy sunna la waaw li koy waral euh, liy waral sujjóot mooy lu ñu tuddee jamuj waaw manes na ko tudde fàtte waaye mooy koo xam ne da doon julli euh, yëg ne euh, ñaari ràkka la julli wala boo rek daal di ba noppi daa di rukkoo aat ñaari rukkoo ci benn ci benn rakka kooku maanaam mën naa am sax euh, buñ ko nee ko rukkoo nga sax xëy na du ko du ko xam ndax lu ma ko ma ko waa ku fàtte buñ ko fàttalee day fàttale ko waaye bu dee saxu moom ñaare mën nañ koo fàttali sax te du fàttale ko moom juum nag wala saxu kenn mucc ci waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xëy na da doon jàngale ay moom dal na ko ay yoon xëy na da doon jàngale ñoom moom mën nañoo wax ne da doon jàngale waaw ndax julli na ñaari ñaari rakka fu mu waroon a jullee ñeenti ràkka ñu ne ko danga ngaa xasru wala daa mat mu ne mat na ñu ne ko des na ñaar kon loolu tam ñu bàyyee ko xel noonu euh, kon li waral sujoodu sax wi nag mooy ñaari ñaar lay doon ba ñett nga dolli walla nga wàññi walla nga dolli wàññi ngay dolli kese dolli ci julli gi walla nga wàññi walla nga boore dolli ak wàññi soo dollee euh, lu mel ni nga sujjóot ñetti yoon dolli nga sujjóot boo koy sujjóot lu ñu tudde baada salaam lay doon baada salaam baada salaam mooy dangay julli ba sëlmal ba sëlmal julli gi jeex na nga sujjóot ñaari sujjóot taayawaat sëlmal taaya boobu nag abduhu a rasuluhu rek la yem kon benn bi loolu la maanaam baax baada salaam mooy da ngay sujjóot ba da ngay julli ba sëlmal ba sëlmal xam ne julli gi jeex na nga sujjóot ñaari sujjóot taaya daa di daa di sëlmalaat bu dee wàññi nag wàññi euh, dangay ngay su da ngay taaya julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan li nga war a ñaan euh, ba war a sëlmal ba war a sëlmal daal di sujjóot ñaari sujjóot doo sëlmal waaye dangay ngay sujjóot ñaari sujjóot taayawaat ba abduhu wa rasuluhu daal di daal di sëlmal waa kon da ngay dolliwaat beneen taaya waaye abduhu wa rasuluhu la yem kon boo dollee baada salaam soo wàññee day ñëw ci loolu la salaam de xëy dana ñëwaat ci farata farata ku ko wàññi moom taxut nuy wax ngëneel ku ko wàññi itam taxut nuy wax waaye sunna am na juróom-ñetti sunna yoo xam ne boo ko wàññee boo ci wàññee ñett boo ko sujootul sax sujul yàqul am yoo xam ne nag bu dee xam la salaam boo ko bàyyi boo ko bàyyee am ci yoo xam ne woyof na woyof yoo xam ne boo ko bàyyi woon waroon koo sujjóotal xabla salaam te sujjóotaloo ko kenn du la ko topp su julli mën naa bañ a yàqu kon moo taxoon ma ne kon cosaan li mooy sunna na am na ci foo xam ne ndax loo xam ne boo ko boo ko bàyyee te sujjóotaloo ko su jul yàqu na kenn ku ne xam na ne loola day mujj doon farata ci julli mu des beneen bi mooy soo dollee wàññi soo dollee ci julli gi wàññi dangaa dolli loo lu bokkul ci julli gi ba noppi wàññi ci lu ci bokk ay sunna kon day mel def nga luy waral euh, baada salaam def nga luy waral xabla salaam mel ni dangay ngay xab la salaam kon xabla salaam ngay ngay sujjóot mu yóbbaale bi ci des mhm. moo tax wa in naqasta summa zitta fasjuda qabla salaamika ala maatumida beneen masala mooy ku fàtte sujuudub qabli maanaam qabla salaam loo xam ne lu daa war na sujuud qabla salaam te sujuudu ko lu mel ni dafa bàyyi aw saar foofu nag ñu leeral saar soo ko bàyyee mel na ni ñetti sunna nga bàyyi ndax bàyyi nga saar wi bàyyi nga taxawaay bi bàyyi nga bérél gi walla yellu bi kon moo tax lu mat di bàyyi xel la benn saar boo ko bàyyee bàyyi nga saar wi muy na dafa bokk ci juróom-ñetti sunna yooyu bàyyi nga taxawaayu bi nga doon war a taxaw ngir jàng saar bi waaye bàyyi nga yellu wala biral te yëpp ñetti sunna la kon muy ñett sunna kon soo ko fàttee nga xam ne danga bàyyi aw saar ba sëlmal lan mooy àtteem bàyyi aw saar ba sëlmal nee na bu jegee nga xam yow danga danga da fàtte rek ba sëlmal bu fekkee ne bi nga ko fàttali ko jege na nga xam ne jugugoo ndax fi nga doon fi nga toogoon kon dañu na ko sujjóot dana baax ndax comme fàttali ko jege na rek da ko koy sujjóot gaaw ñaari sujjóot yooyu dana baax waaye su soree su yàggee wala nga génn jàkka ji nga xam toog nga ba mu yàgg ba waxtu wi daanaka nga fàttaliku ne man de bàyyi woon naa lu waralul sujjóot loo xam ne ñetti na la bala génn nga jàkka ji ba dem sa kër ah nee na loolu julli ga yàqu na julli ga yàqu na waxuma laa sujjóot ba waaw kon dootoo man di ko sujjóot sa kër génn nga jàkka ji rek fee rek jeex na dangay ngay julliwaat kon gis ngeen lu lu lu mat di bàyyi xel la am solo la bu fekkee ne li tax li tax ngay sujjóot day ñetti sunna waaw doon ñetti sunna la kon ñoo ko waxee léegi nga bàyyi euh, lu mel ni saar ak yu mel noonu waaye tey ji bu fekkoon benn kàbbar nga bàyyi walla ñaar ñaari kàbbar buru takbiratul ihram takbiratul ihram moom farata la farata la kenn du ko sujootal boo ko boo ko andiwul te takbiratul ihram dafa bokk ci farata yi nga xam ne kenn mënu koo dabaatal waaw moo euh, boo xasan ba tàmbali julli ba ca kanam da dangay da ngay julliwaat te am na farata yoo xam ne mënees na koo dabaatal waaw takbiratul ihram boo ñëwoon rek fekk kuy julli nga daan taxaw jàng faatiha wala nga jàng faatiha ba kii duñ la ne koy dabaatal da ngay indi beneen déedéet da ngay kàbbaraat bu dee yeneen kàbbar yi nag bu du takbiratul ihram sunna la ku ci bàyyi benn wala ñaar wala sami allahu liman hamida nga bàyyi ko da ko da ngay ko war a sujootal xabla salaam xabla salaam ma waxaat ko euh, da ngay taaya ba war a sëlmal nga xam ne asalaamaaleykum rek moo ci des nga nga soo ko sujoot ñaari sujoot sujjóot boobu itam am na sujjóot benn am na yéene am na ñaari sujjóot am na jataay seen diggante am na sëlmal sëlmal gii moom mooy yóbbaale bu dee la salaam sëlmal gii mooy yóbbaale gi ci des bu dee jege na kon danga koy sujjóot bu dee sori na nag julli gi mooy yàqu bu fekkee ñetti sunna nga bàyyi bu dee nag benn sunna rek la kon julli gu du yàqu ndax li nga bàyyi xay na taxu koo diis lool gis ngeen julli dafa am yu diis gann yoo xam ne kenn mayewu ko kenn saraxewu ko am yoo xam ne mën nga koo jàng ci ak sujjóot ñaari sujjóot am yoo xam ne boo ko jàngut it comme mboyof na suñu borom mën na koo ko mu des nag ku fàtte sujudu baad yi baada salaam danga yokkul ci julli gi ab rakka te fàtte ko benn rakka te teyoo ko loolu tam ñu bàyyi ci xel maanaam euh, bàyyi gi dafa am sahu am amd bàyyi te tey ko boo ci yokkoon benn rakka benn rukkoo wala benn sujjóot te tey ko sujjóot yàqu te tey ko sujjóot ne damay sujjóotaat beneen sujjóot te tay ko sujjóot yàqu na ndax yaa ko tay waaye boo ci yokkoon ñaari rakka masalan ci tisbaar ñaari rakka ci tisbaar yokk nga ci ñaar bu boobaa da nga fàtte bu boobaa da nga ko sujjóotal ba'da salaam da ngay julli ba sëlmal julli gi jeex na nga sujjóot ñaari sujjóot Euh, ba sëlmal daal di euh, sujjóot ñaari sujjóot taayawaat mooy baax duhu war a daal di sëlmal soo ko fàttewoon woon nag fàtte soo ko fàtte woon toogoon ba deux mille vingt trois bii nga fàttaliku ne man deux mille dix neuf waroon na maa sujjóot benn ba'da salaam du tee da nga koy da koy mën nga ko sujjóot ndax sëñ bi soo ko fàtte woon doon te at la wala ay at. mën nga koo mën nga koo sujjóot bu dee farata nag farata farata bàyyi farata nee moom kenn mënu koo jàng lu dut farata rek tey jii boo doon julli ci biir julli gi nga fàtte rukoo ba ba raw la naam des na ci ñëwaat ba ba weesu ko xam nga rukkoo la kenn du ne da nga koy sujjóota ay baar waaye déedéet da ngay am na fu muy toll da ngay bàyyi raaka boobu indi ko beneen indi beneen raaka remplacé ko donc kon farata moom fa laysa fa laysa tujbaru illa bi ityaani biha is tuzkaru waaw farata moom moom rek farata rek lañ ko mën a jànge ki nga xam dafa bàyyi ngëneel fii nag liñ ci bàyyiloo xel ci ñu nag ñuy déglu lu ci na jéem a gëstu pour nga jariñoo darsi bii moom nga jéem a gëstu ji faratay julli yi ak sunnay julli yi ak ngëneelu julli yi parce que xajut ci daa yaakaar naa xaju fi pour fee xaj euh, jéem ko gëstu ba xam yow li nga boo bàyyee yan mooy farata yi nga xam ne soo ko soo ko bàyyee mënta ñàkk ak sunna ni yi nga xam ne soo ci bàyyee eh, mën nga koo dabaatale sujjóotu sax wi ak fadail yi nga xam ne moom soo ko bàyyee lu mel ni xunuut xunuut ci suba ci fadail yi la bokk soo ko bàyyee sujjóot sax waru ci waru sujjóot am na ñu ne sax boo ko sujjóotalee te tay ko sa jul yàqu bu dee benn sunna rek nee na kenn du ko sujootal bàyyi benn sunna rek ba mu des euh, yellu boo yelloo loolu tam ab ab masala la boo doon julli tisbaar julug yellu la nga jàng ko ca kaw foofu looy sujoot baada salaam looy sujoot baada salaam ndax yellu da war na yellu nga jàng ca kaw ci palaasu yàllu da nga jàng da ngaa foofu itam ci wax ne xiraa sirriya bokkut ak xiraa saamita di jàng alquran ne cal di jàng sam xel di jàll di jànge sam xel loolu bokkut ak jàng ci julli ci julli julli moom faaw da nga yëngal say tuñ lu néew néew salaat bi maanaam njàng bi lu mu suufe suufe waaw léegi nag nga war a jàng ndànk jàng ca kaw bu boobaa euh, da nga mel ni ku yokk moo tax illa sir moom boo ko boo ko bàyyi da ngay sujjóot euh, ba'da salaam boo boo doon waroon a biral comme timis nga war a jàng ca kaw jàng ko ndànk boobaa it baada baada salaam ngay ngay ngay sujjóot xabla salaam xabla salaam bu doon timis la nga war a jàng ca kaw jàng ko ndànk boobaa da ngay sujjóot waaye bu dee benn yeneen sunna yi benn sunna rek du taxa du taxa sujjóot benn sunna rek ba mu des li ma waxoon léegi bu dee saar moom ak lu mel ni ay juluus yooyu ak eh, ay tashahud benn sunna bi dafa amaale ci biir ay sunna lu mel ni saar wi bokkut ak loolu waaye yeneen sunna yi boo ci bàyyi benn lu mel ni allahu akbar bu bokkut ak takbiratul ihram kooku moom doo ko sujjootal beneen masala soo waxee ci biir julli te tay ko te tayoo ko soo waxee ci biir julli te tay ko moom julli nga yàqu su wax ci biir julli te tay ko su julli yàqu li ñuy wax mooy soo waxee ci biir julli te tayoo ko dangay ngay julli ñu ne la moor nga ne nga ne nga ne mbàkke tayoo ko bu boobaa wax nga te tayoo ko kon da ngay sujjóot baada salaam ndax danga ngaa dolli ci julli gi ci bokkul ku doon julli ñeenti ràkka itam war julli ñeenti ràkka julli ñaari ràkka juum sëlmal waaw ñeenti ràkka nga woon na julli julli ñaari raaka juum sëlmal daal la ko fàttaliwaat kon dangay ngay jug àggale àggali julli gi waaye itam dangay ngay sujuut baada salaam baada salaam boo noppee boo jullee ba sëlmal dangay ngay sujuut baada salaam ku dolli itam ñaari rakka walla benn rakka ku doon julli timis dolli ci ñaari rakka te tayoo ko wala ngay julli tisbaar dolli ci benn rakka te tayoo ko naa ne boo ko tayee moom su julli yàqu bu boobaa tam da ngay sujjóot baada salaam waaye julli moom ku ci dolli lu na toll boo doon julli tisbaar danga ngaa juum dolli ci ñeenti rakka muy juróom-ñetti rakka donte tayoo ko itam sa jul yàqu na euh, tisbaar noonu tàkkusaan noonu timis rek la am ñu wax ne am na ñu ko wax euh, boo ci dollee moom faa nga dolli ci yeneen ñeenti rakka am na ñu ne boo ci julli koo dolli du toll ni moom daal si jul yàqu na kon ku dolli ci julli lu na toll lakinna ma mislu salaatin in yuzad fiiha fa tabtulul la daa man qad naqat beneen masala mooy nit koo xam nga sikki sàkka nga sikki sàkka naan ñeenti ràkkaa laa julli wala ñaari ràkkaa laa julli jàppal na ñaar nga julli waaw toujours rek li gën a néew ñeenti ràkkaa laa julli wala ñetti ràkka jàppal ne ñetti ràkkaa nga julli mat na wala matut jàppal ne matut ndax ñoom boroom xam-xam ñoo ko a chaque shakku fi nuqsaani ka taxqiqi waaye booy sikki sàkka naan dafa manqué rek jàppal ne daa manqué jàppal ne daa manqué booy julli jàppal ne dafa manqué rek jàppal ne dafa dafa manqué waaw xëy na dana ci ñëw durul koo xam ne nag da koy dal lu bari doonte bis bu set mu dal ko benn yoon kooku moom day julli rek saa bu jullee lam lam jàpp rek na dem koo xam ne bis bu set mu dal ko donte benn yoon la kooku waaye bokkut ak ki nga xam ne li mu koy dal bariwut koy dal talaata yenn saa yi mu toogaat ba àjjuma yu mel noonu soo sikki sàkkaane mat naag matut euh, jàppal ne matut nga dolli la nga jàpp ne soo ko dollee dana mat boo doon si boo doon sikki sàkka itam fi nga toog julli ba noppi naan ñaari sujjóot la sujjóot wala benn sujjóot gaawal sujjóot waaw gaawal sujjóot wasjud iza shakakta fii ka sajda min baadi ma biha atayta baada lu mel ni sujjóot wala leneen soo dee sikki sàkka naan indi na gaawal sujjóot soo jullee ba noppi itam di sikki sàkk naan sëlmal naa wala sëlmaluma jaawal sëlmal a toog naan man ndax sëlmal naa walla sëlmaluma nee na sëlmal waaye bu yàggul nag bu yàggul waaye su yàggee wala nga génn jàkka ja su jul yàqu na bu yàggee wala nga génn jàkka ja rek su jul yàqu comme ni ma ko waxoon léegi rek ba mu koo xam ne zaw yi waswasa ñi nga xam ne ay jiixi jaaxa waaw ci bàyyi saa rek seen xel du toog bis bu set mu dal leen benn yoon nee na li ñuy sikki sàkk duñ ko ëddeet waaye nag day war ci ñoom ñuy sujjóot saa buñ noppee rek baax de salaam dañoo sopp ci ñoom saa su ne waaw bu ñu julee ba noppi rek sujjóot baada salaam baada salaam nee na tarxiim li seytaan la anaka dañuy merloo seytaane bokk na ci liy merloo seytaane koy naqari ndax julli gi noppi na moom waaw ndax da doon jéem a juumloo nga nga kii ko beneen masala ci li sa bi indi fii itam li fi a leeral xam nga bu dee fiq bari nay bari na masaayil yu wuute ay wuute waaye sëñ bi moom ci li mu indil taalibe yi da leen indil yi nga xam ne moom la intimaat moom nga xam ne tey boo ko seetloo ci téere bi gëstu na ci téere yu bare bare bare dajale yi nga xam ne gis na ne lii ci la xam-xam borom xam-xam yi maaliki yi nga xam ne ci ñu gën a sukkandiku mu indi ko ci téere bi ku doon julli daa di bérél xunuut benn mu tay ko wala tayu ko xunóot ñaan googu su ko tayee dañ koo sib waaye dara waru ko ci su fekkee ne nag tayu ko moom dara waru ci waru ko ci ndax dafa kon li fii li fiy leeral mooy dafa bari ay mbir yoo xam ne day niru day niru lu aay te aayut maanaam te àggut fenn fi kon julli mën nga cee fekk ay mbir yoo xam ne day mel ni maanaam boo ko defut euh, ci ñu xamut dafay aay lool am mbir yoo xam ne maanaam mën nga koo bàyyi mu nga xam ne da moo ëpp daraja daal ëpp farata nga bàyyi ko te nit ñi duñ ko bàyyi xel fi ne ku doon su ku doon ku doon ku doon nu mu tuddati ihraam daal ne allahu akbar ne nii fi ne nii ci ci ci aada ji ñu xam nga xam ne defoo dara da nga ne allahu akbar ne nii say loxo defoo nii ñu bari ci ñin ni <laughs> ko imaam defee moytu bu noppee da su ko waxtaane te lii yëkkati say loxo nii fadila la nga ne la allahu akbar ji mooy mooy ci farata li ci des euh, ci fadaa il la bokk moo tax muy leeral yenn yi nga xam dafa niru lu aay lool te xëy na soo ko defee kenn du la ci teg lu am solo lu mel ni ñaari ràkkaa yu mujj yi ku ci jàng aw saar xam nga jàngu saar ñu la ko sant ci ñaari ràkkaa yu jëkk yi ñaari ràkkaa yu jëkk yi lañ la ko sant waaye ku ñëw ci ñaar raaka yu mujj yi nga jàng ca aw saar moom itam dara waru ci soo ko tayee dañ koo sib soo ko tayul dara nekk bokk na ci yi nga xam ne itam ci loolu la bokk mooy nga dégg ku naan sayyiduna muhammad nga ne sallallahu alayhi wa sallam te yaa ngi ci biir julli nee na it dara nekku ci soo ko tayee dañ koo sib waaye nag bañ koy def gi nag moo gën parce que julli lu ci bokkul rek bokku ci hmm. nee na moo xam bi nga koy wax yaa ko tay walla tayoo ko euh, da ngaa taxaw wala da toog ñu noonu waxoon na ko léegi mooy ku jàng ñaari saar wala nga jàng wa tiini wa zaytuuni teg ca inna anzalnaahu fi laylatil qadri teg ca beneen saar wala nga jàng aw saar laata muy àgg nga génn jàng beneen saar nee na it dara nekk wala sax ngay jàng saar wi laata muy àgg nga sujjo nga rukoon hmm. nee na dara nekk yooyu yu mën a mel ni dara la te du dara da caa bopp nee itam ki nga xam ne dafa junj ci biir julli ci loxo wala bopp ndax diwang fi nga ne nii sa bopp wala mu ne ma dem nga ne ko nii junj ko ci sa loxo kooku itam dara nekku ci wa ma ala almushiri fi salaati bi yadin aw rasin sujudun aati sujud waru koo xam ne nag dafa juum jàng faatiha jàngat ñaari yoon hmm. euh, kooku fekkee dafa juum Euh, day sujjóot ba'da salaam bu dee daa juum ko yaa ngi jàngaat su fekkee nag moo ko tey jàng fatiha ba mu neex ko mu jàngaat ko kooku day sujjóot bu dekkee bu fekkee moo ko tey julleem day yàqu fa ba'dahu wa in li amdin za duri fa zahiru lbutlaanu inda laxdari beneen masala ki nga xam ne dafa dem bay sëgg ngir rukoon fàttaliku ne jàngut saar wi jàngul saar wi nee na kooku jërul muy jërul muy delluwaat dégg kon ki nga xam ne dafa dem bay rukkoo boo xasee bay rukkoo fàttaliku saar rek du tax nga nga delluwaat di ko di ko jàngaati boo noppee comme ba bàyyi nga ko nga sujjóot la salaam su fekkee ne nag fàttaliku euh, ne jàngoo ko woon danga nga ko jàngoon bu baax te warul koo jàng yellu te suju rukkooxa goo da ngay da ngay baamuwaat li nga jàngoon waaw bu fekkee ci saar wi kese la da koy baamu te sujjóot du la ci war waaye su fekkee ne nag euh, ci faatiha bi la ak saar wi nga baamuwaat ko da ngay sujjóot ba'da salaam ndax da ngaa yokk mu ñëw ci reetaan xàqataay muuñ moom bokk ci yàq julli mooy muñ ñi rek nga xam ne dara feeñut waaye reetaan ci julli boo ko tayee sëg julli yàqu na loolu moom boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci su fekkee tayoo ko itam ñu bari ci boroom xam-xam neen sëg julli yàqu na reetaan di julli ree waaw am kàddu fii nag mu indi fii leeral fi lu bari ci nee nag julli ki ciy ree sàggan rek la mën a doon kuy fo ku bew julli màgg na màggaay boo xam ne ñu doon wax sànq di dee yaaleeg sa boroom jàkkaarloog moom seetal sa xol kan nga ci gën a bëgg rek gën koo fonk nga woo ko téléphone wala nga jàkkaarloog moom di wax ak moom muy wax ngay tontu muy wax ngay tontu nga jëkk rek xàqataay te doonul sabab bokkut ci wax ji waxuma laa subhaanahu wa taala mu ne ab jullit ku gëm yàlla te sellal te ragal yàlla su taxawee di julli day génn ci xolam bépp mbirum àdduna ba mu des suñu borom subhaanahu wa jël àdduna bàyyi ko fële xam ngeen ne gaa yu baax yi ñu baax ji buñ dee julli lu ñu waroon a def dañ koy def xorom cin sax suñ naree dem te xorom ci dañ koy xorom ndax bëgguñu dara di leen yitteel foofu nag mënees na faa wax rek léegi di ëpp ci ñun muy suñ portable yi dana yàqal bu baree bari ci teewlu gi ndax nañ gis ku julli koo xam ne daanaka bëggu dara raw ko ndax lépp a ngi dox connexion baa ngi dox mu ngi diglu mu ngi nàngam loolu nag yaakaar naa euh, dafa bokk ci mbir yi nga xam ne daa wuuteeg julli contrat bi nga nekk sa diggante ak sa boroom déeyaale bi ngay déeyaale moom ak diggante boobu war ngaa couper lépp lu jëm ci àdduna àddunay kese mu defee waaye xam nga ne nit warul di déeyaale ak ak di amaat beneen itte ci leneen loolu xanaa manqué la su suñu manqué te ku mel ni man waaye ku teewlu nee na màggug suñ borom bi ci xolam day mujj xol bi di lox mu tiit ragal ne sax moom du mucc nee na li Seydina Omar Fuuti yu taal wax rek mooy boo duggee ci julli da ngay mel ni ku faatu waaw mel ni da faatu wala ñu lay mel ni yaa ngi jàkkaalum nit ñi ñu lay sanga ka denc ka malaaka ya ñëw ak di teewlu yooyu loolu nag sëriñ bi waxoon na ci beneen barab ne ku bëgg a julli te booy julli teewlu da koy tàmm dangay tàmm xalaat ci mbirum mu jëm ci yàlla boo julliwul yenn saa yi nga toog benn barab di xalaat ci suñ borom subhanahu wa taala ak i mbindeefam ay mbindeefam ngay xalaat soo ko defee di ko xalaat bu ko boo ko defee ba mu doon aada ci yow boo dee julleeti xaal boobu mën naa ñëw ci yow waaye boo nee man balaa maa xalaat bu jëm ci suñ borom subhanahu wa taala rek damaa taxaw di julli saa boo ne allahu akbar problème yépp aksi daanaka ci ngay ci lay gën a kon kuy julli loolu nee na mooy jullit ñi nga xam dañoo ragal yàlla ni yàlla teral ci àjjana julli nag mbokk yi am na ñoo xam ne euh, ñàkk julli moo leen yóbbu safara qaalu lam naku min al waaye itam am na ñoo xam ne itam ay jullikat lañ waaye suñu borom subhanahu wa nee na ah ña ngi ca xuru sawara fa waylun lil musallin kon moo tax mbir yi ma a bàyyi xel julli lu am solo la xam ngeen ne julli ku ko def ni nga ko war a defe li ci li aju ci ay ak pay kenn xamul nu mu waaye am na julli yoo xam ne suñu borom soxlawu xëy na sax suñ borom def na ci yërmandeem allazina hum an salatihim saahuun allazina hum yuraauun wa yamnauun almaauun te boroom xam-xam yi wax ne alhamdulilahi ba nga xamee ne waxut ne fii salaatihim bu newoon fii salaatihim moom moom dana doy waar mooy li mu jublu rek mooy ñi nga xam ne itti woowuñ julli lool itti woowuñ julli seen xel lu néew lay dem ci julli am xam dañoo bàyyiwul xel julli waaye lu mu ci mën a doon rek julli lu foor la lu am solo la waaye noonu yi nga xam ne euh, ku kuy julli euh, boo jullee julli gu jaar yoon ni mu amee yool ni mu amee solo noonu yi la ku julliwu te teg ko ci yoon noonu lay ñàkke solo mën naa tax sax nit ki julli ñu boole ko julleem yóbbu safaan nee na bokk na ci masale mooy muuñ sujjóot waru ci baa mu julli gi it waru ci kon xaq ah, la mu doon wax mooy reetaan muuñ sax xëy na mën naa ñàkk bu koo xam day xalaat ca leneen xëy na jëm ci borom subhanahu wa taala nee na jéggale nañu jooyu ki nga xam daa ragal yàlla jéggal nañ ko xam nga koo xam ne day jooy ba yëkkat ndax leneen mu am kàddu kooku moom bokkul ci julli gi sax waaye jéggale nañ jéggale nañu itam kuy julli dikkuy xibaar kuy julli dikkuy xibaar dala information di romb mu ne tekk mu ne tekk ab diir kooku jéggale nañ ko donte wóoru ngay ngay julli rek am ku romb ab xibaar bu xëy na bu la kii nga ne ab diir rek nee na jéggale nañ ab masala mu ngi nii léegi ku jóg ci ñaari ràkka ba laata muy toog dangaa julli ñaari ràkka laata nga xam nga dangaa war a toog taaya defoo ko nga jóg ngay jóg euh, foofu itam saa su dañuy bëgg ki nga xam ne ci mazhab bi booy booy jóg dangay comme ni ngay def tomp sa ñaari loxo sa ñaari bëti woom mooy jëkk a jóg say loxo soog caa soog caa tege waaye doo toog daa di daa di jógi nii déedéet da dangay dangay ngay da samp sa sa ñaar loxo nii bëti wóom yi daa di jóg mooy jëkk jóg nga desandi ko loxo yi daa di def nii léegi nag laata ngay toog nga war na toog ngir taaya laata ngay toog ngir taaya nga daa di def nii samp sa ñaari loxo sa ñaari bëti daa jóg na waaye teqale koo gut ak suuf nga delluwaat nga delluwaat euh, ca taaya ba nee na loolu sujjóot waru ci loolu mooy masala bu njëkk yow daal xam nga loolu bu fekkoon ne dangay def koo xam ne da ngay da ngay jóge nii xam nga boobaa kon lii doo ci mën a bénéfice bu dee bu dee loolu la waaw waaye comme noonu nga jullee loolu tam noonu la ñuy jullee ci ci mazhab bi def nii ñaari bëti woom mooy jëkk jóg loxo yi mooy jëkk bàyyeekoo suuf mooy mujj bàyyeekoo suuf bokk moom yi boo dee rukkoo mooy jëkk àgg suuf soo dee moo fay mujj bëti woom waaye laata ngay ñaar yëpp di taqale ko suuf nga ko daal di toogaat nee na sujoot waru ci dara waru ci ndax dafa woyof na daanaka da dem bay jóg rek daal di fàttali ko daal di waaye nag su fekkee ne taqaleku naak moom nga xam ne dem nga ba bëti wóom yi ak loxo yëpp jug na nee na wéyal wéy wéy maanaam nga continuer jërul ngay dellusi si hmm. waaye soo noppee nag danga nga sujjóot looy sujjóot ah looy sujjóot xabla salaam ndax da bàyyi taaya bàyyi jataay bi bàyyi boo xasee ba say bëti wóom rek ak say loxo xas ba jóge suuf rek jërutul ngay fii nag boo ko doon def subhanallah ji dana <laughs> ah mooy problème bi <laughs> nga xam ne boo moytuwul danga nga perturber ñi julli <laughs> maanaam boo boo defoon noonu bara toog rek loolu moo tax ñi ñi ñi ñi julli surtout ñi nekk ci kanam ñoo war di am xam-xam bu toll ni imaam bi da am surtout ñooñu parce que ñoom comme imaam bi nee na nii rek ba ba ay tànkam jug jug ba ba lépp jug xam daa war a jàll xam na ko loolu aka neexoon ñi nekk ci ci kanam xam ne daa war a jàll waaw ñépp na ci àll daal di jóg <laughs> mu noppi daal di sujjóot xabla salaam ñëpp sujjóot xabla salaam mais da ngay gis koo xam ne moom imaam jug na ba kii mu naan subhaanallah rek ba mu sax mu wax ci biir jullit ay problème la moo tax yenn saa yi ñuy bëgg ñi nekk susuur si ñi sës imaam doon ñoo xam ne ndax mooy tax ñoom ñooy gérer ndax boo yow looy wax subhanallah te ñuy nekk rek teel jub yow danga xam ne ñoom comme dañ ko topp rek xam nañ xam nañ la xew am na beneen àtte mooy bu si waate xam nga def na ko ba nopp ay tànkam ak yéppam jug na waaye mu dell siwaat nga noonu nee na jullem baax na déedéet nee na bu del siwaatee nga xam ne ginnaaw bu mu yëkkatee ay loxoom ak bëtiwam ba doo del siwaat nee na ñaari àtt la neena na bu fekkee ne laata muy yamoo am i'tidaal laata muy jóg rek bay bay kii xam ne mu ngi jóg waaye demagut ba bay yamoo xam nga mën naa dem ba taxaw jonn ba léppam ak siwaat am i'tidaal nee ne euh, na sujjóot baada salaam moom itam mhm. mu ñëwaat ci àtteeb koo xam ne dafa wal wal nag mooy euh, ëf euh, wala ci gémmiñ alif ak faa ëf moo ko wax ñoo yam noo wax ñoo yam moom bu boobaana nag sujjóot baada moo ko wax yam su fekkee moo ko tey nee na juloom yàqu na bu fekkee nag ci gémmiñam la ko defe ci gémmiñam la ko defe waaye foofu fuuf ko moom yàqu julli mooy bu dee bàkkan la beneen masala mooy boo tisiwalee xam ngeen ne tisiwale ci lislaam looy wax alhamdulillah loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale sunna la ñu wax la yarhamukallah nga tontuwaat leen yahdikumullah wa yuslihu baalakum dafa bokk ci su nit ci suyoolee wax alhamdulilah foofu ci àq jullit ak mbokkam nga ne ko yarhamukallah ñu bari ñun dañ ko sàggane àq la joo xam ne yàlla mën na ko laaj nit ki ëllëg alhamdulilah ji sunna la kii nga xam ne nag daa ci suyoolee ci biir julli ndax day wax alhamdulilah wala du ko wax jërul wax jërul wax ci biir julli bu dul bu dul julli danga ko war a wax waaye itam bul tontu ki nga xam ne danga ne alhamdulilah am na ñu baax ñoo xam ne foo ne foo rek nee nañ yarhamukallah dañoo bëgg balaa nga ne ko yarhamukallah nga bàyyi ba mu ne alhamdulilah nga soog koo wax yarhamukallah waaye boo déggee itam ku xam ne daf la dafa tisiool yow ci biir julli nga nekk ci biir julli dégg ku tisiool daa ne alhamdulilah ngay julli yow bu ko wax yarhamukallah ndax yaa nga nekk ci biir julli la nga nekk ci biir julli nga nekk nee na bàyyi googu nag dañ koo sopp ku ko def dara waru ko def masalan boo déggoon ku naan ci biir julli waaye ñu ne bàyyi koo gën rek ba boo bàyyi ko ndax bàyyi gi da lay may ab yool da lay gën a may ab yool julli bu fekkoon cent pour cent la yi ñu lay wax naan dañ koo sopp dañ koo sopp xam nit mën naa julli julli gi baax na lépp baax na waaye bari bàyyi bàyyi na bari na ay sunna wala boog ay fadail wala ay euh, numutu mustahabaat yu mu bàyyi yoo xam ne boo muy tut bu doon ab fay la ti misaal rek laay joxe suñ boroom a xam euh, mën quarante cinq pour cent lay am donte baax na ndax dafa bari lu mu bàyyi te loo gën a bàyyi yiñ sib moo gën nee na it boo dee au blé xamaa xamut noonu lam de au blé béblé nee na ci biir julli xam ngeen ne ci sunna dafa bëgg dafa bokk ci adab adabu nabi sallallahu alayhi wa sallam boo dee óbbali nga wala bébbali nga jël sa loxo def nii bu dee ndeyjoor bi mën ngaa def nii mën ngaa def nii bu dee càmmooñ bi nag dañoo bëgg nga def nii xam ne lislaam ku bari ay teggin la xam nga nit léppam lu bari boog awra xam nga nit ak gémmiñam ñu bëgg nga def nii boo dee julli itam boo dee boo dee ci biir julli nee na nga teg sa loxo sa biir gémmiñ ngi noonu loolu rek moo ci war kon duñ la may nañ la ko daal may nañ la nga ah, dañu bañ la nga ne damay julli su ma dee bébbali itam naa def nii rek sañ nga ko def nii wala nii noonu soo bëggee tifli itam nee na na nga bu fekkee da ngaa yor morso wala daal neen ko na ko def ci biir te bul génne aw xaraf dégg nga taf daal la ñuy bañ <laughs> taa ak faa <laughs> ah, waaye boo nee taf rek te tay ko sa julli yàqu <laughs> waaye lii rek waaw ndax nit mën naa dem ay loxo ay yu ñëw mu dal ko ci biir julli nan lay def boo xamut soo koo xam ne mën naa taxaw di julli allahu akbar rukon daal ne xaaq taf moom ñeenti araf la def far <laughs> waaw dafay yàqu te lu gis nga lu xaw a simple la te xaw a xaw nee na it koo xam ne day nekk ci biir julli ci biir julli gi mu fàttaliku ne tuuti rek ne man est-ce que sama yére bi ma sol amut sobe a est-ce que man yére bi ma sol amul sobe ah daal xelam dem ne amoon na sobe sax de waaye laabaloon nañ ko laabaloon nañ ko Euh, kon leer na ko ne léegi amut sobe euh, bu boobaa de continuer xalaat boobu mu ko xalaat xam nga xelam mën naa dem ci ne bi mu xalaatee ne rek yére bi am na sobe rek am na ñoo xam ne mën nañoo dagg julli gi ci saa si déedéet dañoo na ne teg ab diir xool gëstu tuuti tuuti nag gis ne ah yére bi amut sobe mu daal di continuer julleem dara waru beneen bi mooy ci nga xam ne dafa niiru lu yàq julli te du ko yàq mooy ku julli ba ci yàgg mu geestu mooy geestu nag buñ ko waxee mooy nii rek dala nii waaye nii moom maanaam wëlbatiku nga xam ne complètement wan na maanaam jublootul xibla donc moom day yàq julli moom geesu moom mooy kenn kii rek nga ne nii nga xam ne lii rek def nii waaye bu dee loo xam ne da wëlbatiku jëmm ji ci boppam boobaa euh, day yàq julleem ndax istidbaarul xibla xam ngeen ne jublu xibla fii tam des na ci leer bu ne xibla rek xibla boo ne xibla ñu ne penku du penku mooy kaaba ga la kaaba ku nekk màkka wala biir màkka wala ku seen màkka ci kaaba gi ngay jublu ku sori màkka nag jeexatul jihatul kaabati fii ñun kaaba gi dañu féete ci wàllum ci wàllum penku waaw fii itam fonk la ci dëkk bi da am na ñoo xam ne penku daanaka wala wala manaan xibla fonk wuñ ko noona waaw nga gis jàkk yoo xam ne daanaka euh, ngay gis jàkk ji jublu nii ñi jublu nii léegi nag ku doon julli di di fab ab loxam di doxantu <laughs> loolu euh, di julli euh, am lum ne coppet def ci jibaam kooku julleem nu mu deme def na lu araam de waaye julleem baax na bu def bu defut jëf yu bari <laughs> xam gis nga bu dee nekku fa di yëngal yëngal yu xam nga jëf ju bari jëf ju néew masalan tey sama sama kaala di wat rek ma ne nii kooku yàqut julli kasratu eh, afaal fi salaati mooy yàq julli waaye bu dee xillatul afaal kom def nii leen saa yi sa kii def nga def nii yooyu dañuy bañ daal ku la gis eh, li tënk bi mel ni kii julliwut masalan gis maanaam fekk ku julli xam nga am nañu koy def masalan sa portable di sone ci biir julli gi nga daal di génne Euh, dem ba gis euh, kii li koy fay daa di fay xam kooku ku la gis buñ ko ne day julli du ko gëm am na ca jëf yu ndaw yoo xam ne nit mën na koo def daa defaraat kaalaam waa yu mel noonu yu ndaw ndaw la kon ju maanaam fab loxo bu doxante ci biir julli su jëf yi bariwul <laughs> ndax bu bu jëf yi bare waaye jëmmi jëf ji moom yàqul julli def na lu arab nag borom doon ko topp waaw ah, na ko coppet waa coppet am fu mu ko dugal <laughs> ah. naka noonu itam xam ngeen ne soie wala sooy am na soie yi fi amoon yoo xam ne yaakaar naa yooyu moom du soie ndax bu dee soie yi ñu xam mooy duudatul xaz euh, soie dëgg nga xam ne daa cher lool nga xam ne jigéen moo ko sañ a sol waaye góor moom dañ ko koo dañ mu sol ko dañ koo araamal mu sol ku doon julli sol suwaa suwaa bi araam kooku itam def na lu araam waaw waaye wér na julli gi wér na def na lu araam naka noonu itam ku doon julli am lu jaar ci kanamam te waru koo xool wala am ku jaar ci kanamam te waru koo xool mu xool ko xam nga ne xool ñu ko bu njëkk bi kenn kenn mënu cee mucc moo tax boobu garawut waaye xool xoolaat walla seetaan sëñ Mbàkke Abdourahmane di wax mooy seetaan seetaan la ñuy aaye <laughs> ay xool kenn mënu cee mucc nit naare waaye bu xoolee nga bañ koo def nii koo xam ne xool rek ñu ne mu ci bu njëkk bi loolu xool xel mooy xool bëgg a xool xool te jublu ci xool waaw xool na lu araam bu boobaa def na lu araam waaye julli gi wér na wér na nag mbokk yi bokkut ak nangu na de <laughs> ci fiq kenn du la ne julli gi yàqul waaye xam nga ne di julli di fab ah yàlla de mu mën na yàlla ko nangu daal hmm. beneen bi mooy ku doon julli jaxase ci alquran ji lu ci bokkut mel ni benn baat benn baat nga doon jàng rek boole ci alxuraan ci loo xam ne bokkut ci alxuraan nee na loolu sujjóot waru waaye bu fekkee dafa changé maanaam iyaaka nga ne euh, walla nga ne iyaaki xam nga moom daa doy waar wala naabudu nga ne taabuduuna wala nga soppi maanaam kooku moom dangay bu dee bu dee fàtte sax waxuma bu dee ci saar la walla nga soppi maanaam yi euh, baada salaam ngay ngay sujjóot ndax dangay yokk ci ci julli gi bu dee benn baat rek nag nga xam ne da koo ko te indi dolli ci te bokku ci moom kooku lu néew a la bu ko ëppee nag nay daal di sujjóot baada salaam ki nga xam ne nag day nelaw ci biir julli day daa gémmantu ci julli gi bu fekkee daa woyof daa woyof nelaw yu jekki-jekki rek na gamm ma nga koor gi euh, kooku nee lu woyof la dara waru ci waaye bu diisee bu diisee diis nag doon duñ koy tollu day mel ni ku doon julli rek nga xam ne nit jaar fi ba jàll jël na dara ba jàll am na lu mu yoroon wadd yooyu dañu wane ne diis na xam nga nelaw bu diisee da yàq julli da yàq euh, jàpp bu defee bu diisul du yàq jàpp kii nag da doon julli nelaw nelaw yu du diis mën naa nekk fi mu fi mu sujjóote ah daal di nelaw jekki-jekki rek daal xam ne nelaw na daal kooku moom julli ga yàqu na jàpp ma yàqu na kon xam naa ne euh, ñu tënk rek bu dee kuy xaddem bu ko kooku itam daa def luñ sib waaye bu fekkee lor a ko waral euh, dara nekku ci jéggal nañ la ko feebar moom itam jéggal nañ la waaye nag bu fekkee da ngay xaddamiku ngir bëgg am loo xam ne maanaam dañ la doon wax ne yow la wala du yow nga ne kooku nga xam ne yow daa am looy wax kooku itam dañ koo dañ koo sib kon mbokk yi li nga xam ne moom lañ doon indi xam ngeen ne te lii ay masail la dañ ci jublu woon li ma jàpp ne moom lañ ci jublu woon mooy ñu xam ne julli am na boobu importance julli itam suñ borom lu fonk la lislaam lu ko fonk la euh, julli dañ ko war di jàngale bu baax a baax a baax di ko di ko di ko jël ndax lii lim laaj dafa laaj ci li may bokk li may proposé def ko ay duroos fii ah donte benn yoon par par weer di ci xam naa sax ñoom am na yu ñu ciy def ñu koy encouragé bu baax di ko jàngal nit ñi surtout ci téere yi tasawur subaan ak euh, lu mel ni jawhar nafis parce que lu nit ñi soxla la nu mu ko waxee woon sànq nit ñi day mel ni yenn duroos yi yenn thèmes yi lañ gën a fonk boo ne woon tey ji dañuy waxtaane julli kenn du ñëw daanaka waaw ah, maanaam bari na ci na fii moom jumaay Tuubaa la waaye am na ci foo xam ne muhaadara bu nekk fee nga ne julli lañ fay waxtaane nit ñi dañ koo xaw a kii te julli lu compliqué lu jafe-jafe la suñu Abdul Xaadir waxoon na ne xawuma ma ku mën a julli waaye ku nangoo julli laa xam nañ nangoo julli mais nag nañ bàyyi waale xel ndax jaamu yàlla balaa ko yàlla nangu dafa am ñaari chart mooy benn na dëppog sunna te it na sell na ko te yàlla tax dëppook sunna nag mënta am te xamoo te xamoo xamoo li ciy farata sëñ bi soñee ne soññ bu rëy rëy rëy ca tasawudu sixaar ne képp koo xam daa julli ak lam ca wax lépp xamoo la ñu laaj xamu ci dara daal nga xam bu doon ab examen la lañ lay ndax bu fekkee dañ leen julli na nga ne waaw ñu laajal la nga ne waaw sax waaye koo xam ne daal jéemu ci xam dara dara dara dara kooku moom xam nga ne jërul xam mooy di jéem a ittiwoo suñu diine surtout julli lu ama am solo la di laaj itam ñi koy jàngale itam ma jàppale dañ ko war di jàngale ci anam goo xam ne bu yomb yomb la xëy na euh, ni temps bi demee la waaye lim laajoon mooy foo xam ne dafay laaj ay ay ay ay misaal ak i nàngam parce que loolu la laaj njàngaleem julli ni ñu ko waxee léegi du ay théorie du ay théorie la yonent bi sallallahu alayhi wa julli ne ne julli leen may jullee sallu kama ra'aytumuni usalli kon loolu moo tax ma xam ne lii moom da wax nii xëy na liñ ciy jàpp yaakaar naa des na jàpp dara waaye li ci gënoon a jàpp mooy foo xam ne tuuti la ñuy jël leeral ko ba mu leer euh, lañ ci am ci ay wuute yëpp ñu wax ko ba mu leer ba defee nit ñi mën koo jëriñoo maa ngi jégg lu baax lu ci jub rek xam naa mbaaxu suñu borom la lu ci jubut itam wala leerut maa ngi jégg lu baax di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu itteel mbokk yëpp mel ne bu ñu xoolee ni nga nosee waxtaan wi nos gu tënku la njëkk nga ñoo leeralal téere boobu di jawharu nafis wax fi ko sëñ bi jëlee te mooy alaxdar yi ni nga ko waxee ci tàmbali bi téere boobu it nekk téere bu barkeel mooy alaxdar yi boobu sëñ bi jël ko dal koy leeral tuddee ko jawharu nafis li mu wax ne sammaytuhu bi jawharin nafisi fi haqdi natril axdar yi ar waaye te ñëw nga ci leeral ñu téere boobu lan la làmbool jawhar nafis boobu lan la làmbool indi nga ñu lim njëkka làmbool mooy waajibatul mu mukallaf bi lan moo ko war eh, indi na ci yu yaatu yoo xamante ne sax jaw laxdaru yu ba eh, taxut mu yaatal ca lool naka noonu bi mu ci paree indi na ay ahkaam ay atte yu aju ci li jiitu julli mooy ay laab ak yu mel noonu indi na ci lu am solo lu yaatu bi mu ci paree it dugg ci julli tëjee ko bunt bu am solo bii di albaabu thani waaye it leeral nga ñu julli ak importance bi mu am ñëw nga ci ni nim ñëwee nan lañu ko joxee nan lañu ko fartaalee ñëw nga yit ki li ko jullit bi di soxla ci chaque jour da koy def ay yooni yoon yoo xam te ni farata la doon juróomi yoon yoo xam te ni bu ci nekk farata la naka noonu ni ñu jullee nit ki mënut a fenn ba bañ a julli fu mu toll rek am na nuñ ko waajale ngir mën a jullee noona naka noonu julli ku ragal ku ñu ragal ñoo xamante ne dem nañ ba doon ba xeex bu doon amit julli gi moom kenn deesu ko kenn du ko faat naka noonu it bëri atte yu aju ci moom atte yu aju ci moom ci avant ak ak biir julli gi avant julli gi gis nga sart julli yi laab yaag yépp buñ ci paree nag dooga ñëw ci biir julli gi atte am ci ay ay faraid ak ay sunan naka noonu it leeral nga Serigne Touba suñu sang bu tedd bi ni mu ko yittee woon ni mu ko yittee woon ci wàllu jëf ak jàngale yépp soññee ci bu baax a baax a baax loolu moom du du duñ ci guddal ndax ñëpp xam nañ sëñ bi yittewoo na ko lool jaamu yàlla yëpp rawat na julli waaye tamit nga daal sa tombu ñetteel bi nga daal dugg ci nag baabu saani boobu daan ci indil ay leeral comme ni ni ci duggee rek mooy ni ci sëñ bi duggee mooy leeral njuumte sunna li sahwin baana sajdataani mina siyaadati awi nuqsaani noonu mooy bunt bi li li li ko sëñ bi ubbee mooy njuumte njuumte ndax li mu wax ne da nga koo tay yu ci bëri julli gi day yàqu yu ci bëri julli gi day yàqu moo tax julli boo ci yokkee dara te tey ko eh, atte ba ci gën a not mooy yàqu am na nag yoo xamante ni du ko yàqu comme julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga dégg ku tudd yonent bi nga loolu daraja bu mu am ak marta moo tax yonent bi moom eh, suñu borom da ko fonk fonka goo xamante ni suñu jëwriñ ji rek doy na ci misaal ni ko jàppee woon da nga ne kii ku suñu borom fonk wax ci biir te ko mën naa ne mën naa bay yàq julli ci ni ko suñ waxee ci bu fekkee ne da ngaa dégg wax da ngaa dégg ku tudd turu yonent bi nga ne sallallahu moo tax Sëriñ Tuubaa radiallahu anhu saa bu saa bu tuddee tur bi rek da ciy teg sallallahu alayhi wa day bàyyi wax dem doon wax yépp julli ci moom ba pare dooru continuer yu bëree bëri yu ñu gis ci xaside yi ak téere xam-xam yi naka noonu bi ci paree nga leeral ñu ne bunt bi dafa daa am yeneen lëkkalool daa lëkkaloo nga xam lu jiitu li siñ bi jiital ci téere bi mooy nga xam faratay julli yi sarte yi ngay njëkk a xam xam farata yi xam sunna yi xam fadaayil yi doog a ñëw nag boo ko defee bu la siñ bi ne boo bàyyee farata wala bàyyi sunna fekk yow nga xamoon ne bàyyi naa lii li ma bàyyi farata la wala li ma bàyyi sunna la wala li ma bàyyi ngëneel la bu fekkee farata la moom sunna sujjóot du ko du du ko jagal bu fekkee lu ñu bàyyi la farata bu ñu bàyyi bu fekkee sunna la nga xam ñaari sunna la war a bàyyi pour mën a sujjóot ñaari sunna ak lu ko féete kaw wala boog benn sunna bu fekkee wax ndànk la foo war a ci kaw wala wax ci kaw la foo war ndànk foofu tamit sëñ bi leeral na eh, boo bàyyee loolu na nag nga koy defaraatee muy ndi ci sujjóodu sujjóodu sahwi mooy sujjóot balaa ngaa sëlmal wala su jóot boo sëlmalee ba noppi loolu nag naa baxda salaam bi ak xabla salaam bi lim araabe moo tax ñeneen di ko jaawale waaye boo wàññee balaa ngaa su jóot balaa ngaa sëlmal ngay su jóot boo yokkee boo sëlmalee ba pare ngay su jóot boo yokkee wàññi nga xam ne ñaar yëpp moo gi bala ngaa su jóot ngay sëlmal loolu xam naa ne fekkoon ci wolof la dañu ko jàngalee mooy gën a yomb waaye du tee rek xabla salaam boo wàññee naka noonu baxda salaam boo xam ne su jóot boobu mën naa yàqu ba pare yàqaale julli ga bu fekkee li nga bàyyi daa ëpp ñetti sunna ba pare nga génn jàkka ja su jóbi day yàqu ba pare yàqaale yàqaale julli ga naka noonu it sàbbaal imaam indi na ko sàbbaal imaam foofu lay tëjee eh, bu fekkee ne imaam dafa def lu mu defal mu jaar fu mu war a jaar nga sàbbaal ko loolu it lislaam dañ ci jàngale topp kilifa waaye saa boo xamante ne mi ngi ci yoon wi saa bu wàccee yoon wi li li jaadu mooy ñu ñu ne ko yoon waa ngi nii ñu daal koy ñu daal koy ñu daal koy ñu daal koy yee bu ñëwaatee nag ñu daal di ànd ak àndaat ca yoon waaye tamit xam fañ koy sàbbaale ndax am na fu mu leeral ne bu imaam amee ñaari rakka di jug bala moo jug bu fekkee ne loxo yi tàqalikoogul ak suuf si man ko sàbbaale ne ko subhanallah mu fàttali ko daal di toog waaye nag bu loxo yi xajee basee ba ba jug ba óom jug ba mu taxaw boobu subhanallah bi même boo ko waxee it bu ko dëgëral parce que moom lañ ko digal mooy mu continuer julli ga kenn digalu ko mu ñëwaat donte bu ñëwaatee it du yàq sa julli ga dara day si jot baax mais continuer ga lañ lañ ko digal bu ko defee yow nag boo toogee foofu di xaar imaam ñëw boobaa sa sa julli mën naa compliqué bu fekkee imam dafa dem ba rukkoowaat ba ba siggi ci rukkoo fekk la nga toog foofu naka noonu it fu ñu war a toppee imam foo xam te ne imam kenn bu fexeen day yokk yokk gu fees ci benn raka loolu kenn ko topp ku ko topp te xam ne ñetteelu sujjóot la sa jul day yàqu parce que la taa'ata comme ni ko suñ bi waxee ci commencement bi hadisu la taa'ata lil maxluqi fii masiyatil xaaliqi fal mithaqa fii kon ku yoon la ñu topp mais ku nekk koo topp da ngay nekk ci jafe-jafe waaye imam boobu boo ko sàbbaalee mu bañ laa wuyu it bu mu tee nga ànd ak moom ca fañ la ko digalee ndax wa in tayaqana kamaalaha al imam euh, fa hamalun ala yaqinihi yuraam kon bu fekkee ne imaam lim lim jàpp moom lim jàpp moo nañu ko def ko bu fekkee yow da nga koo sàbbaal wuyu la it na ne dalaa dalaa dalaa dalaa bàyyi xel donc daa jàpp ne li mu wax am na solo moo tax mu kii noonu kon foofu la ñuy tënk di gërëmaat Seydina Hasan ci waxtaan bu am solo wi di fàttali mbokk yi ne leen weer wi jeex na waaye it liggéey bi jeexut jaamu yàlla gi jeexut jumaa ji mi ngi fi MKTV it mi ngi fi naka noonu ñi doon joxe seeni laaj ci ci fatawa yi laaj yi am na yu ñu ci tontuwut ndax dañu doon sélectionné waxtaankat bu ñëwee ñu jox ko li mu ci mën a tontu mu tontu ko li ci waxtu wi xajut ñu bàyyi beneen yoon laaj yooyu am na yu fi des waaye yi fi des incha allah danañ ko tontu ci émission boobu ci MKTV tudd gàggantiku te borom xam-xam boobu di Sëriñ Mbàkke Abdourahmane eh, di ko taxawee ci télé boobu bu ko defee it ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm yàlla nangu jaamu yàlla yépp di euh, ndokkeelaat baax ak di santaat baax Seydina Hasan ci waxtaan bu am solo bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi